waa ngi noonu di waaj a génn. wallaay da koy daan Borzo wu ma fuuf Fils de day xaar. gannaaw bi wax loolu man daal laa tudd Borzo da koy daan. lu leer nañu laa lay wax. Borzo da koy duma. góor a ngi di génn. boo nee na yéen ñëpp leen ko pousse leen. góor a ngi noonu na nen ba. Roy noonu di génn nee na Ama Baldé la bele la bele Roy ngi noonu taxaw am na sonde lu nu ko jox joxe na ko foofu am bu mu di ko tuuti Roy ngi noonu du déggal nag ambiance bi moo ngay sotteeku benn butéel waaye noonu am na beneen soo bu ko jox mu koy sotteeku joxaat nañ ko beneen butéel fàtte nañ ko soowa nag mu mag bi yaa moom kamba ren tous tapp nañu lu dul ndam góor wàcc na ma oto ba góoraa ngi noonu taxaw ci boto bi tax talal loxoom ñaan na ba dugg ci biir

dafay jëxin oo oh, sama ngi doon di ñëw ay gaa ngi noonu ci oto bi daa ëpp wala daa manqué. kan moo dugg ak wootu dugg la ñuy lijjanti. Balla Diouf dugal na neuf booy. ay mbër per set la la ah, wax de ci lijjanti ñi woo góor ñi woo dugg leen. latoo àndal dugg léegi kii ci la bokk valable na kii booy bii kii ci fenêtre bi muy set nii muy cinq yi da cinq ngi mu des. sept sept sept moo des. waaw. waaw. That's all right. non non génn naa man maa ngi dinaa dugg loolu pexe na. non non ci mi kaay ci mi kaay benn dugub bu ñu def. gars yi gars yi

bul kuraa noonu léegi ñaata la man kese maa des man kese des benn. bu dee dafa am lu ci biir lu warul baax bu génn. waaw. teg ko si.

xë xëcc bunt bi may ko ñett ñi ñii ñii rek waaw waaw bu dee mbër na dem xaar ñii ne waaw ñett yi kese ak mbër mi jéem na xaaral xaaral après ñu a noonu di ñëw ñoo ngi koy wisal xawam waa ngay dox daw tàll na sangoor ba dox na moo ngay ñëw ngi noonu di dox di dem góor a ngi noonu di dox jëm ci diggi géew bi xoolal Fils de Balla Fils de Balla ngi noonu di ñëw Gora Sock a ngi nañ ko ko xoolal Talfa sotti na ko wala nañu soow bi munu cee ñàkk hee lamb doo soog Fils de Balla làmb ji mënut yomb doo soog a <laughs> hee làmb lamb ñu yëngu na te demagul fenn cey góor góor soo ko ngay jaayu simi na benn dàll ba pied gauche ba sukk jugaat taxaw am na lu ñuy def suul lu mu cee dugal pied ba tànk ba suul nanu ko suul nanu ko aadama suul nanu ko tànk ba suuli na ko dëggaat na ko moom góor a soog ngi koy suulaat bu paree lu ñuy def dañu koy solal dàll ba am na lu ñuy def ca dàll ba wala boog ca tànk ba sotti nañ ko ca am na lu ñuy sotti ca tànk ba avant muy sol dàll ba moom Gora Sock jox nañ ko dàll ba nga ci bu suuf di joxe doo ngi tibb di joxe teg nañ ci mukaay lépp tey làmb lépp tegtal la ku nekk yaa ngi ñaan di ko joxaat muy sot suuf ñëpp joxe nañ ba pare tàllal nañ seen loxo ñoom ñëpp ñoom ñëpp tàllal leen loxo làmb leen tegtal la tànk ba kenn xamul lu mu koy wax jëlal mbooloo mi Adama xolo waa Cambérène waa Parcelles tey ñëw nañ ànd ak seen mbër jëlal ma Gora Sock am na yàq bu mu koy xool am na lu muy xoolal ki nga xamante ni mooy Fils de Balla kenn xamul yàqu lan la Gora Sock a ngi di ko xool Gora Sock a ngi noonu ci cumukaay bi mooy wax ak Pape Diagne am na butéel bu muy sottee ko moom Gora am na lu ñu Gora Sock a ngi noonu Gora Sock a ngi dugg na ci diggi géew wi Gora daa teel a noppi. dëkk wax mag dem dañ taali dagg war mbaam lu waay doon jaay léegu lab ba combat bi jamaykee da koo jàppoon le 20 mars yàlla suñu borom antuwul li ko waral mooy Gora Sock moo amoon benn blessure ñi dëkk Géejawaay ba ci Fils de Balla ne daa daw Gora Sock dem préparé ji faju ba état de santé macha allah wérgu yaramam lépp ne impact ni ko xale yi di waxee mu ñëw tey fas yéene laale xale bi di Fils boo gisee Gora Sock tey ni mu duggsee ni mu tuusee ni mu waajee nga xam ne làmb ji jeex waaye en tout cas lu mën a xew lu mën a xew mooy <laughs> arbitre bi ngi wax ak ñoom ñaar li règlement bi wax ak li mu nangu ndeysaan arbitre bi laaj na ay siisam laaj na fi seen wàll arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 14 minutes Gora Sock féete la càmmoñ Fils de Balla féete ndijoor nga jàkkaarloog moom ñu ngi lewaatoo est-ce que dina am round d'observation ñoom ñaari xale yi Fils de day dem wala Gora Sock day dem ndaysaan ca kaw la jëm Gora Sock dóor na ndaysaan cokkaas ñoom ñaar kenn mooy njëkk a song Fils de Balla Gora Sock Gora Sock Fils xeex ña ngay xeex Fils de Balla xeex <laughs> laa ilaaha illallaah supporters yi yuxu nañ Fils de Balla Gora Sock jiital tànk càmmoñ Gora Sock jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar bu ñu xeexee mu neex suñu bëree mu neex fi de Balla Gora Sock ñu ngi lewaatoo combat bi maadu daa nar a diire Fils de Balla ñu ngi lewaatoo Fils de Balla daw na jàpp am na ngemb busulu busulu busulu waaw waaw busulu ku nekk ak sa foor waaye Gora Sock da koo yëg liir ko téye ci loxo bi boo ko defee li mu bëgg du sot waaye ñoom ñaari xale yi ku ci nekk état de forme bi nga indi jaar na yoon ku ci nekk fonk bi door na ko laa ilaaha illallaah door na jël na ko caxabal daan na laa ilaaha illallaah Fils de Balla daan na ko jël bu rëy daa bëreeg moom jël ku jëlal Balla Gaye jëlal Balla Gaye fan la Balla Gaye jëm topp na Fils de Balla Ndeysaan Fils de Balla wane na boppam. waaye Fils de Balla wane dina boppam. ay waay géeja waay waay. Ndeysaan Balla Gaye. Ndeysaan Balla Gaye. ma nga noonu Balla Gaye.